fitna yi am ci àdduna bi li koy yëpp mooy wa taqatta'u amrahum xam ngeen ni ñun suñu réew bokk na ci rare exception réew yi nga xam ne ci àdduna bi réew bu ma jaaxal la Sénégal yow mi fi dëkk sax dalay jaaxal parce que réew mi mënuñ koo defar wallahi lu dul taw yi bu ñu sonal suñu bopp du neex a wax nag saa boo waxee day mel ni dafa am ñoo jublu dafa am ñoo contre mais gis nga jikko yi ñuy wax an aar jikko yi sàmm jikko yi idée yu baax la waaye man dama jàpp ni jikko mënta baax te aqida baaxut te xaqan looluy dëkk yonent bi nag innama bu'istu li utammima yàlla dama yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yi li koy mottali mooy at tawxid xoolal yonent yi fa ñu tàmbale ba fi ñu jeex ku nekk wa laqad naa fi kulli ummatin an ibudu llaha wajtanibu ñoom ñépp ñoo ko bokk yow nga bëgg ni da di defar jikko yi am yu ngeen tànn am yu ngeen bàyyi foofu loolu rek la mën a nekk dafa neexut neexut waaye gis nga hmm, damay topp a jaag damay tiit lu tax damay tiit mooy am na mission yoo xam ne boo ko porté soo xamul fi ngay teg sa tànk da ngay juum su leen gisee ñun ak ñoom lu bari ñu ci am yenn wuute yi da ngay wax lii mu xaw a nuru da ngaa contre fekk contre ñoom sax ku toog sa néeg déglu la dana xam ne li nga ko wax mooy dëgg waaw nan la ñuy aaree jikko yi bàyyi ñu dul julli ci suñu biir ki dul julli mun naa am jikko ju baax ki weddi julli jikkoom mën naa baax bankal sa baaraam neel benn mën nañoo aar jikko yi gëm ci suñu biir ne am na ñu am yonent bu dul Muhammad ah mën naa nekk neel ñaar mën nañoo aar jikko yi gëm ni yàlla nga kii yàlla la kay fas wi sax yàlla la loolu mun na nekk hmm? xam nga lu tax bu ñu dajaloo ku ne am loo gëm du dem lenn rek ñu mën a boole waatasimu bi hablillahi dara mënu koo indi lu ak tawxidu awalan ya shabab tawxid rek moo nu mën a indi waaye bu ñu àndee nga summi sa mbubb fële ñëw ñu ànd teg da ngay nax sa bopp rek taxsabuhum jamian wa qulubuhum billahi alladi laa ilaha gayru nguur jigéen ku séene wu ma ko baaxul boroom dañ koy atte rey ki ne yàlla laa nag lu koy atte ki yàlla la lu ko sariya di àtte ah leeral leen rek yéen tam ah kon lan la tanee góor jigéen bi ah nit dina nekk góor jigéen di julli def na lu bon bu buñ ko àttan sariya dañ koy rey ki bàyyi julli nag da koo tane da koo gën ah xel yi nañuy xalaat dafa loo xamante ni wallaahi ñoo ngi yéen a ànd waaye dañoo bëgg fondation bi nañ ko def pax mi pax mi moo daar moo tax biri bu ngeen teg mu dëng boo dee maso di liggéey paxu fondation bi bu daaree loo teg mu dem daar benn bâtiment du taxaw lu dul fondation bi baax fondation mooy al asl al asl mooy at tawxiid awalan yaa shabab bu tawxiid amul dañuy sonn suñu bopp dañuy yuuxu ba sonn fi ñuy jaar duñu ko gi ndax duñu am basira bu ñu bëggee defar jikko yi bu ñu ko bëggee aar bu ko defal bis bu nit ñi amee aqida xam ni yàllaa ngi ànd ak ñun ci xam-xamam suñu dara mënu koo réer ñu instauré ko jàngal ko nit ñi ku nekk na dem këram toog kenn ku ne day baax kenn ku ne day baax waaye bu ñu weddee toog fi naan diw LGBT la kii LMD la kii LM nangam da ngeen di sonal seen bopp da di sonal seen mbir mi du foofu mbir mi tabax bi la tabax bi la ñu rate la ñu rate parce que li indi rata tabax bi mooy kullu hisbin bi maa la ladayhim farihun tey ñi ñu wéeru ne dañoo bëgg ñu jàppale ñu tey lan lañ ñu jàppale parce que ku nekk ci ñoom tey dana ma indi ci waxu benn waaye joo xamante ni daanaka man dama naan kii est-ce que jar naa tontu ba ci yàgg yow sa àdduna da nga yow mag moo xamante ni musiba rek ngay wax mais ñun fan lañ jëm sëñ bi Buxaari ak muslim ku leen saaga mooy saaga nga suñu diine li wér ci suñu diine Buxaari ak muslim moo ñu ko indil. julli bi ngay julli woor bi ngay woor jaamu yàlla bi bu dul woon ak buxaari ak muslim noo koy defee nan tey ñu saaga fi buxaari ñëpp na ci yàlla nañ fi saaga benn buxaari senegal nga xool benn sëriñ papaam moom nañ ko wax musiba rek nga xool léegi nga xam fi nit ñu toll boo ni woon papaam nangam rek xale yi dañu réew dañu ñàkk teggin li mu wax ñëpp ne tekk parce que li mu wax du dara ci ñun ñun dara ñu yëngal bu ñu saagaa Muhammad doo dégg dara lan moo tax parce que dañ ñoo diviser dañ ñoo séddoo def ñu ngato di ñu lekk di ñu naan loolu mooy suñu problème moo tax pour ñu tabax société bi defar ko wallaahi lu metti la lu méttee metti la ku jóg nag foog ni mën nga koo tabax te jaaroo ci tawhid da ngay sonn il faut ñu am tawhid te gis nga tawhid bii ñuy wax nii ba ñi ci diriger dañ leen ko war a jàngal fii ngay toog gis kilifa diine boo xamante ne sax ci barke sama maam lay waate fii doo ko dégg Sénégal te nee nga mooy kilifa gi moo ëpp xam-xam moo dirigé fii nga gis kilifa goo xamante ne day toog ba yàgg faalewul yàlla ci maamam lay wax wala baayam fan lañu de nan la suñ jikko mën a baaxee nan la ñu mën a aaree jikko yooyu ñoo xam ne amuñu tawhid amuñu pas-pas kon wàllu ngóor jigéen kenn cautionné wu ko ñun cautionné wuñ ko waaye gis nañ ñi liggéey bi fi mu gën a tax mooy ñu liggéey ci ci tawhid liggéey ci tawhid wallaay démb damaa déglu xutba cheikh naa docteur sama xol bi daa sedd guy wallaahi ladi laa ilaha xayru dama toog ba caag ma ne ah laay gars yi war nañuy déglu gis nga mbir da nga koy yëkkati foog ni lu baax ngay def fekk yaa ngi taal sa bopp te xamoo ko mbir yi nañu dellu ci cosaan yi loolu moom mooy wax ji bu taw tawhid amul dara du am léeg boo waxee la ma waaj waxoon lan moo tax yéen actualité bu amee du ngeen ci wax ngeen di wax nanga ma leen da ngeen a xamul actualité mooy tawhid ñun problème boobu la ñu am ñun dañoo dañoo toll ci jàng raam nañu fexe ba raam bi dëgër ba ñu mën a taxaw mais mënuñoo tëb daw te te raamaguñu nan ngeen bëggee ñu tëb daw xët xët xët yuuxu ji fële te dëkk baa ngi am problème nan la ñu mën a waxee ci ngóor jigéen te ñu ngi ni am problème mu julli ñu ngi am problème mu jaamu yàlla ñu ngi am problème mu pas-pas xool leen jàkka yi ci ngay xamee ñun ñun suñu jikko ci julli baaxagul moo tax gis nga iqamatu salaa ñu bari dañoo foog ni mooy taxaw ne allahu akbar allahu akbar déedéet iqaamatu salaat mooy balaa ngaa julli ak boo jullee ba pare loolu mooy iqaamatu salaat waaw qabla an tusalli wa baada faraagika min as-salaa hiya iqaamatu salaa ki taxawal julli su nekkee néegam dafa taxawal julli su nekkee ci wanag bi dafa taxawal julli suy jënd ci bitig bi dafa taxawal julli parce que moo tax julli li muy defar ci moom inna salaata tanha anil fahshaa'i mais mënuma nekk fii mooy yàlla wax lu ma neex julli jot ma ñëw dugg ci jàkka ji mooy maa ngi naan comprimer foog ni comprimer yi daf may faj mais lan lay mujjee ni day mujj nekk effet secondaire parce que damay naan di sa ci sama biir parce que julli gi ba léegi xamaguma lan lay représenté man xamaguma julli kan moo ko santaane su ma demee ba jàpp ni julli man uma sàll mun na ma koo tere mooy man damay dox mais bëy bi tanewuma ko wallahi ladi laa ilaha gayru bëy bi tanewuma ko parce mën naa nangu ni Oumar Sall mën na maa tee julli ma bàyyi julli mooy man xamaguma man lan la man lan moo tax yàlla idduma ci kaw suuf xamaguma ko feeg loolu xamagoo ko deme ko iqaamatu salaat mbokk yi booy dem ca jàkka ja boo jullee boo paree boo liggéeyee boo nee ca marché ba boo nee ca bërëb loolu mooy iqaamatu salaat moo tax bu ñu ñëwee bokk na ci bu ndeysaan suñu papa saw buy li xam ne ah ñu qad qaamati loolu lay wax julli gi taxaw na parce que dund nañ ko ba pare su ñëwee julli dafay yomb kenn ku nekk da ngay jàpp ni man jullit laa bu nekk ak sama morom te war koo yee war ko laay biir yàlla yàlla may ñu dégg ak topp ak comprendre suñu diinee lan lay tekki